alla aaduma live bi fii lay amee kan leen ko léegi léegi nii ngeen partage ko ñëpp jot ngeen abonné fii lay amee compte bi aleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa génnoon communiqué daan ne faramaare yi dañuy lancé cagnotte pour jëndal Wally Ballago Seck jet privé man maa ko waxoon parce que mi ngi jógee ci kàddu yi euh, monsieur le ministre Omaro monsieur le ministre Omaro ak ñeneen ak ñeneen waaye nag loolu ba nu koy wax dan ko doon wax nii rek yaa ngi dégg di farce mais Wally Ballago sekk bu bëggee jet privé moom moo koy jëndal boppam du ñaan kanoj du yalwaan du wut nit di ko dajaleel dara pour muy jënd xam nga ne Wally Ballago Seck bu bëggee jet privé moom moo koy jëndal boppam kon au oh, monsieur omoro oh, monsieur le ministre da doon kaf rek waaw di di di yokk coow li xam nga ñun moom saa yu nu bëggee yëngal géem bi dañ koy yëngal maanaam ñun saa yu nu bëggee yëngal géemu showbiz bi dañu koy yëngal parce que Wally li ko yàlla may moo bëri am na omoro communication am aadama bos day néegi nga xam ne bu waxee mu wër àdduna am keneen ak keneen ak keneen moo tax gém bi dañu koo diriger poño ko di lépp lu nu yëkkati ci suñu kàddu rek day def rumeur maanaam nit ñi dañu koy waxtaanee noonu la demee waali santuñu ko santu ko Omaro santu ma ko santu ko kenn yaa ngi dégg ñun ñoo génn communiqué wax ko am yéene farce yëngal showbiz bi yëngal gém bi waaw kay mais Wally Seck bu bëggee jet privé moom moo koy jëndal boppam kon ay kaf la nii rek dan doon kaf di wax rek comme que rumeur yi bëri na di wax parce que tamit yenn rumeur yi day day ëpp quoi dan doon yëngal gem bi nii rek waaw wasalaam jaajëf